examen BFEM bi ñu waroon amal fukki fan ak ñett ci weeru juillet daal dinañ koy toxal la ba ñaari fukki fan ak ñaar ci weeru juillet bi ñu nekk ana lan moo ko waral la li ni mel la moo tax ñu daal di toxantu ba seem yow village ngir laajte ndongo daara yi fii fa ne bi ñu fa demee nag ab groupe élève yu toog di nafar seeni leçon moom lañu fa gis tàppa bàcci li kamara Mariama ak astu Seck di candidate yu war a def BFM ñoom nag lañ ñu xamal la mooy xibaax bi ni mel la tey jile de lañu ñu ko yëg. yëg nañ ko tay si 10 heures si 10 heures lañ ko yëg lañ ñu ko wax en fait suñ surveillant moo ma ko wax man dama ko dégg si élève bi ma dugg di ko laaj après mu wax ñu ko ma génn wax samay morom. pour ñu préparer examen bu baax. man ma ko wax te sànq sax lañ ma ko wax tey laa ko yëg. sànq de dama toog fii man ak sama ñaar camarade de classe après si la suñu surveillant bi ñëw wax ñu ko. bu fekkee nag ñenn ci ñoom daal di nañ cee am mbégte am ñeneen ñu gis ne dañ leen a yokkal ay leçons. li mu doon gën a jege si man maa ngi doon stressé wu naan nan la ñuy jàngee en même temps li ñuy dollil yëpp à chaque fois ñu ñuy renforcer maa ngi doon keneen peu de temps bi ñu desee nan lañ si mën a jàngee après bi ñu waxee dañ ko rapporté si la gën a am soulagement daal. que man moom kii bi moom daf ma arrangé lool parce que pareegu ma war réviser tamit euh, ni ko reporté tamit daf ma arrangé tamit mën naa réviser pendant jours yi des. parce que ñun moom programme woon la 18 la ñuy def examen ba pare ba pare réviser te ñu yokkal ñu ay leçons tamit te ñun démb sax la ñu jox yenn leçons yi moo tax xaaruñu ko woon tamit. xaaruñu ko woon. mais rapport bi nag d'une part neex na mais d' autre part neexul. Hmm. d' une part euh, mën nañoo leen mën nañoo yokk ñu mën a réviser bu baax mais d' autre part tamit dañuy yokk stress comme genre nga xalaat examen bi jàng nañ bu baax réviser nañ ba pare ba pare suñu révision mais boñ ne la 22 la dañoo yokkal ay leçons pour ñu jàngaat ko leson yi ñu jotoon a def daal. yu ñu jotoon def comme en AG et en IC loolu kese la def ko rek mu jeex ndax pare nañ pour def ko dañu yàgg. ñoom dongo daara yi nag la ñu njortu mooy tam xarit bi moo tax ba ñu randal la yëf yi. am na ay temps ñu doon dégg naan dañoo reporté examen bi euh, pour lendemain tam xarit férié la te férié mënuñ cee jàng. loolu rek lañ dégg ñun pas waxuñu sax lan moo tax ñu reporté ko. Ah, xaw ma ko de mais selon moi man dama foog euh, parce que examen bi le 18 la war a nekk xam nga te le 18 mooy nekk lendemain tam xarit te à chaque fois le 18 férié la doon nekk man selon moi loolu laa foog c'est pas nag xaw ma. Alioune Fall nag nekk ab professeur de géographie foofu la ca CEM Yoff di ko dëggal la bu ñu sukkandikoo ci jàngalekat bi nag report bi la xaaroon la.

ils ils ont reporté ça. peut-être que euh, ñoom dañ ko acté rek lu ñu acté la mais ñun xëy peut-être lu ñu sóoraale woon parce que bu ñu demee ba gis euh, datu par exemple tamxarit bi nga xam ne ñëpp xam nañu ne lendemain tamxarit tout le temps c'est c'est un jour férié et que le 18 di considéré à jour boobu donc ñëpp xam na ni xëy peut-être euh, dinañ ko mën a reporter parce que mënoo tàmbale examen un jeudi euh, un vendredi autant pour moi parce que bu ñu férié le vendredi ngay commencé bëgg commencer vendredi après reprendre le lundi day xaw donc je pense que c'est pour juste question d'organisation moo tax ñu ñu reporter ko pour nous permettre nit ñu organiser ko à temps bi ñu xamoon ni datu Tamxarit bi ñëw na donc nga comparer ko ak datu examen bi nga exactement donc organisationnellement dina am tuuti euh, lu mi perturber cet examen yi démarrer un vendredi samedi doit def dara bëgg commencer le lundi encore donc dina xaw perturber tout, surtout xale yi c'est une concentration parce que examen baax na ci examen nga commencer terminer ko euh, sans autant euh, perturbation donc surtout que nous toujours dans les dates limites parce que vous voyez école 31 juillet l'école de donc même si on ko le 22 aussi système, vous am un euh, problème parce que daan le paré avant le 31 juillet. sur une année naa ni que tôt ou y communiqué dina report de quelques jours de du report mais décalage là pour question d'organisation. parce que képp qui a suivre examen il y a un examen def. rompre commencé waat mën na bi xale bi naa ne bu fekkee ni dafay xale bi day commencé lundi mardi mercredi voilà mu toog xaar résultat am loolu moo gën ko ñaari fukki fan ak ñaar di ab date bu bees bu jëwri ñëpp jël la. bu fekkee nag ñenn ci ndongo daara yi daal nañ cee békk ñeneen ña ca des gis ne dañ leen a yokkal ay leçon laata rek ñuy ñaan ngir rek ñu yombalal leen yëf yi bu baax. mais nag épreuve yi pour épreuve BFEM yi nañu dimbale ba mu saf bu baax bu safee rek duñu arrangé